وجبال لنا دون الخدم ثم yéen ñëpp eh, xam ngeen bis bi bis bi nag li ko waral ba yàlla ak yonent bi wiyee ak jëmi sëñ Touba jëmi sëñ Mourtala Mbacke eh, booba ba léegi eh, alhamdulilah yàlla dogal na sëñ Mamour Mbacke e, kii waajuram di sëñ Mourtala Mbacke lii guleet ci moom kon nag sëñ Mamour ndar de bëgg nañ la ndar de fonk nañ la ndar de wóolu nañ te man miitam itam e, ngay sama sëriñ ndar fonk nañ ma wóolu nañ ma bëgg nañ ma waaye nag lii lépp am tey yàlla ak sëñ Touba sëñ Moutala Mbacké yow nga ñëw nag gën koo yokk kon nag fu ma nekk day dama naan alhamdulilah sëñ Touba sëñ Maamoor ndax yéena ma won ma Eh, yàlla dogaloon na xëy na dem lee doon naa yëngutu ci ay mbir muy politique waaye nag bi nga ñëwee la mel sama xol dañ koo fóot ci yooyu jëmal mi ci yàlla ak yonent bi fi may waxee yow lu dul yàlla du yonent bi du sëñ Tuubaa gisuma ko de kon nag ngan gi mooy juróom-benneelu ngan ginnaaw la ngan gi nag eh, yi nu passé am naa yaakaar ne yooyu ngan meluñu nii ndax ngan yi ñu passé yàlla dogal na tey mbooloo mu mel nii bi ñëw bàyyi ko Touba. ah defe naa fen yaakaar naa it maa ngi lay ñaan ci sa barke waajur ak sëñ Tuuba lii gaan sax ba eh, ji yaa ci wax man ñu def jumaa ji boobaak léegi ren mooy ñeenti imaam yi ñu ngi nii toog imaam yi ndarit ñu bari ñu ngi ni toog yi daanaka dañ ne dañuy tey jàng ñeent fukki kaamil xam naa tey gaa ñeent fukki xëy na màngi na waaye am naa yaakaar ne diwan dañ daañ ko jàng waaye lépp nag sa barke maam sëñ Touba ak barke sëñ Mourtala mbake maam moon Mbacke ñu ne sëñ Mourtala sëñ Mourtala lu sëñ Tuubaa sëñ bi kon lii lu rëy la mooy El Hadj Maodo Guèye bu sëñ Mansour ci bëgg démb ci kanam bëggam ci kanam ci nit ñi dafa laxasu man de jànguma waaye boobu de dama ne ah sëñ bi loolu ma wax de laajte gerte bëgg démb maa délégation la ma fi wax mënu ma remercié sëñ bi alaaji Maodo gi nii mënu ma ko wax de alaaji Bàcci Seck xaritama def nekkal waa kër alaaji Maalik waaye sa bis ñi ngi ci ci bis bi sa bis ñi ngi ci ah alaaji Maodo fa la gàccee nga la ma bi ma geesoo seen la kontaan na waa kay kon ma nga toog na ko ah déedéet déedéet da nga dama ko moom sëñ bi dama ma ko ah déet ñaan naa ko sëñ bi nga nga ñaanal ko sëñ bi maa ngi xam ne jox naa ko sëñ bi ñaanal ko kilifa la ñaanal ko ah sëñ Mansour ñoom ñëpp mooy fekk ko moom bàkki seet ci côté Tidiane maa ndar dama am ñëpp Tidiane yu mujj yi Tidiane yu te nga jaaxal ko tamit moomal bu xajal la mu ngi nii de jumaa ji de ñeenti Tidiane de ñoo fi ay imam ñeenti Tidiane di jaaxal waa ndar nee nañ Tijaan moo jël ñeenti Tijaan yu ne ay yilimaan sëñ bi sama xol tey fees na teel waaye nag yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa sëñ Murtala ak yow yow kan nag dégg nga yaa ma yëkkatal fa ñëpp seen ma wallaahi taalaay fu nekk ku am sa xalaat ci yoonu yàlla yaa ngi ma koy wax ci imaam yaa ngi sama imaam yi la ci gémmiñ gi dégg ah dégg nga am Moustapha Seck ma nga rees moom nag waa sa léegi nag bàyyam moo ma ko jox ak ndeyam dara génn soolu laay ki topp ci moom bàyyam moo ma ko jox a ndeyam mu des nag mu des nag sa benn ngoom bi nga jox ngoom ak ki ñoo xamante ñoo ko moom itam nag dañuy sax quatre heures yi di matin moom ak asaan quatre heures la ñëw fii e kon nag sëñ bi loo ma nag sëñ Mourtala la moo ma ñaanal déggoo man ca Ross Béthio nee ma kii bi lu ma wax ak yow fii laa koy wax ak yow sëñ Mourtala yaa ngi may dégg gis nga léegi daaw ñëw nga ci moom waaye dañu ma ne maam moo du xew na loolu moom sëñ Xaadim Mbàkke ñu waa Ross Béthio sa jumaa ji nga xam ne bii dem nga daaw te première paire ba ñoo ma ne joxoon digal ma ngeen déet dafa am loo waxante ak sama murtala ba ma koy jox dama ko nanga ma may sama ñett jër ci fondation bi sëñ Mawla bi mu demee tam man maa lay ñaan nee bu kenn def dara bu kenn def dara bu ma indi sama semence semence nga may ma ko si Mawla may ma ko léegi nag ñoom yàq nañu sax ma ñëw. pour commencer léegi fii nga fi ñëwee bëgg naa jumaa gi nekk tos béykat ba ñëwee déwén may la raase na par fakàlla jumaa la ak margo ak école al te lu ma waxal ko ak daara te le premier père bi daaw maa ma nag maa boole kafe maa ngi kenn def dara parce que ma ñàkk te bu duggee ba pare sax nee naa leen bu kenn laaj ku ñëw nag indi sa. ñaari junni te ñetti junni def ci nangu bu kenn laaj di li ma yàlla séddee soo demee di yobaan weddi naa yàlla maa ko aji sëñ bi maa ko aji sëñ bi kon nag euh, lii bu amee maam moor sama xol moo fees sëñ Murtala rek ne ma ne ma nanguwul dara jëlee suba la mu ne ma ji bi kër gi xaw ma ma mu ne ma kër gi na ma àggee ci bi ma àggee yàlla doon ne fekke wu ko waaye taxaw fekkee ko xëy na nag am nañu xam-xam bu baatiin boo xamul moom moo yónnee ndaw ci man jarbaatam ak rakam sëñ Moustapha ne ko at ma naa bay bàyyi ji ngal ñaari fa ku bëggul nit ku bëggul nit doo ko defal loolu moom it daf maa bëgg de lu ma def day moo tax ma def ko tànkam làmmiñam bëtam laay doxe kon nag yéen waa Ndar ngeen ngeen xam loolu fa tabarakallahu Mbakke balaay sa lu sa wuy jur wa defoon fukk def nga ko téeméer sa taxawaay yàlla yàgg te ànd ak wir ci biir ak ci biti lay ñaanal sa yoon yàlla na àgg yàlla bu la dara fil yow nag Mbàkke neex nga gërëm neex nga sant neex nga way sa maama demoon ci géej gi te ba mu jógee ci géej ba tey kenn delluwul ci géej gi balaay sa buri sëriñ Mbàkke maala maama sa wàllo mi ci naaweel ba mu fi bàyyi koo dem nit ñi jooy ñi di wàcce kaamil fekk ñay wàcce kaamil ak di jooy ñu moom dem gën a bëggoon ndax xam na ca dem nga lii lépp am tey ca dem nga lay amee waaye <laughs> tabarkalla macha allah mbawar mbawar bu mag bii di Alaaji Jibi Njaay am na gan waaye am na reeram sëriñ Mamoor doo fanaan bitti de notable bu mag baa ngi nii doomu mbawar bi yàqul boppam suñu borom dimbali ci kaddu ak ndimbalu suñu borom ak ñaari way juróom ku góor ak ku jigéen juddoowul ndar waaye dafa ñëw yokk ndar allah ji jibi ay ak mu ne nga ñëw fekk nu fi noo lay si gàndoom booy dem nooy taxaw ñu ñaan nga ñaan ñaanal jullit yëpp tama nga comment def ba defee def ba tey alaaji Jibi Njaay kanam la jëm waaye delluwul gannaaw ñu lay sa sant ba balaay sa yàlla nga fi yàgg ñëw waaye Serigne Babacar mu alaaji Maodo mii toog fi laa yendu léegi ba joxe añ yi joxe ndox yi sedd yi ak boisson yi pam yi orange yi dellu sama kër noppalu tuuti xëppoo ndox del si ndax siyaaree guma la te tabarkalla alaaji jibi njaay mii du ma jiwalu juddoom waaye may jiwalam fii ci ndaal waaye jëmm ji toog di sëriñ Maodo ji mu alaaji mun sóor borom sañse bi borom ñaan yi borom sama maam nee barka démb matagul dix jours tund cagal tund jaañ ca kër baayam alaaji alaaji bi nii 4-4 la def gasoil ba mu fees ak délégation bàyyi ko fii dem fekk alaaji Maodo ca kër baayam keroog ba mu yegg see ma ne ko alaaji Maodo am nga gan mu ni ma gii gan ma su ma ko am alaaji bi Njaay toog nii ni ma léegi soxo ma ne ah mu ni yeggal ci kanamu maam Mor sama baay ngi toog nga santal ñu Pape Jibi jëf ji mu defal suñu waajur ñu ngi ciy ñaanal Njaay Jaata yàlla na nga dund ba màggat ba togarante bay doxe bant alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin salawatullahi wa salaamu muhammadin abdihi wa mbokki julli ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi nuyu ñëpp kilifa yi soxna yi ak góor ñi jigéen ñi ak xale yi yëpp ñu leen di nuyu di nuyu ci jiital bàyyi ji bi ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñi ngi ñëw ànd ak nun ci jotaay bi ñu fi ñëwoon ak ñuy toog ñëpp di am mbégte it bu baax ci sant yàlla ci lim nu may nu ñëwaat fi wax na ko léegi juróom benneelu yoon yàlla nañ ko def lu yàgg ànd ko nun ñëpp lépp di jàmm ak ci lu baax rek ñu am ci mbégte it bu baax ndar xam naa ko ndax bi ma fiy jaar di sëñ daal di may yóbbu ci Mauritanie boobu aw ñaar fukki sax lu bari xam naa ko ñu bari yi tamit xam naa ko fi bu baax euh, bariwu defe naa ne gan gu ma fii defal kenn bu weesoo ñaari rakk yi te tuddewu ko sax ngan xanaa day waxinu wolof rek lante liggéey la defe naa ne def ko ci feneen kon moom it ñëw gi ma fi ñëw du ngan ci moom ndax wax na ko bu léegi sëñ Moutou daal la ko seqaloon te bés bu seen ma baamu ko wax ne sëñ Moutou daal ñooñu nit yàlla lañu euh, lépp lu ñuy ku ñuy jàpp yàlla ak yonent bi rek lañ la jàppe ak lislaam ma waxoon ne tamit. defuñu leen duñu dañoo bokkul ay niveau yu ñu nekk sax ba sëñ laa daana def lii rek Maam ñëw ci wet bi loolu doxee noonu ndax bokkul li may wax rek toujours di ko baamu mooy xam nañ ne lépp lu ñu def ñu xool ko mu ñu fekkee ko walla ñu yëg ko luñ ca mën a def danañ ko def ndax danañ xam ne lu baax rekk fa nekk loolu lañuy ñuy jéem waaye nag la mu def ñu di ko def moom kooku mënuñu ndax la dañuy fekk foofu lu baax nekk ñu jéem ko ñu yokk ko wala fu leneen nekkit ñu def fa leen lu baax fii nag moom euh, jullit la jullit la mooy li ngay wax léegi sëñ moo dañu lay nuyu lii mu wax lu wax nga dëgg li nga wax sëñ yow mi ne géwélu ndaram nga wax nga lu am solo parce jumaa euh, damay wax ne am na baat bu alxuraan di wax wa anal masaajida lillaahi falaa tad'uu am llaahi ahadan dafa am ñoo xam ne ni ñu koy firee sax ñun jubóowuñ ci noonu ndax léeg-léeg nit da ñett jàkk ñu ne jàkk kat yàllaa ko moom de waaye déedéet falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan jàkkay kenn bul woon ne jàkk kenn soo ne jàkkay murit la rek wala jàkkay tijaan la rek nekkatul jàkk yàlla yàlla jumaa yàlla moo ko moom kon baat boobu foofu la gën a jekk ci nga dugg fa di wax leneen ndax lu fa jàkk ku fa dugg loo fay wax def naa yëfi diine leneen wala lu ca jëm wala luy lijjante wala luy defar te loolu diine la waaye nag jàkkee tijaan jàng ne le wala ñu murit jàng ne falaate doxama lay ax ah bu boobaay indil nga ci yàlla keneen ku ca dugg kon su nga ko defee noonu sëñ Mansoor mi ngay wax wallaay daf ma daan wax su ma ñëwee yow rek laa may ngay dugg ci sama laboratoire xam nga ko amoon xorom la lan mooy laboratoire mooy néegu boppam waaw su mu ñëwee mu ma yow may naa la nga ñëw ci sama biir laboratoire ma defe na sax loolu la mu ne ma jàll ci sama biir nekk fii mooy sama laboratoire xam nga ñooñu kon xam nañu bu baax te am na ñoo xam ne duñ fa dugg te mën naa am sax ñu jàpp nañ ñu ko jege lañu kon ku leen di dimbalee. da nga leen di dimbale ci nit ñi ndax loolu la ñu xam keroog ba sëñ Abdou Aziz demee fekk sëñ Mourtala di dem bay jéggi bag bi di dem Mauritanie daf koy yëg daal di wàññeeku ba ñëwee sëñ bi di ko reetaan naa ko waa borom daara ji mu ne ko déedéet yow mi yaay borom daara ji daara yi xam nga ñoom dañu am seen biir seen man sëñ Abdou Aziz bu ngeen ñu fekkee ñun ay làkk ay pël sax la làkkante ndax bëgg a dellu ca cosaan rek kon yëf yi du ay. kalan du giiroo du calan nit ku ko bëgg bëggal ko yàlla nga tax nga war ko nga ko wuti kenn du wut nit pour nit yonent yi yonent yi xam na yàlla da leen yónne woon alayhim salaatu wasalaam yàlla daf leen a yónni ci nit ñi def leen ay nit ne nun na nag waajal na leen ndax euh, lu muy def lu nekk day fekk mu fexe ba carrière am euh, euh, lépp mu jaare la ko foo xam ne ëllëg kenn du ca gis looy loo cay def wala nga di ko ca defaraat kon loolu ba nga xamee ne yonente amatul da waaye teewul nit la leen def nag yori nopp yori bopp yori loxo ak i tànk loolu nag nit la ko terale ndax may ko rek mu am libre ci pas-pasam la akira fi dine lu am solo la yàllaa ko wax moo tax diine kenn du ci forcer kenn ndax li li ci yàlla def lépp ak li mu wax nit mënoon na ci loolu mën na ko cee bañ a fekk nit yàllaa ko moom bu nooyee bu waxee lu mu def rek yàlla da ko neex kon su dee jël ay nit def ci ñoom loo xam ne bu la boo ko gisee bu la neexee nga ne du dëgg bu la nee weer waa nga ne ko yonent bi sallallahu alayhi di xaar nga ne ko la wala nga ne leneen la loola neex nga wax ko ko yàlla du la ca def dara ngir bëgg rek looy def nga defe ko sa teeyu bokkan kon su yonent yi amatul yàlla wut ay nit ñu bokk koo xam ne ay nit la ñu ne bokk ak ñoom ñun ñëpp bokk koo ci lim ay maamam tuuti rek daja ak moroom ja kon lan moo war a tax ngeen gisit mu ngeen demee kër sëñ tubaa fekk fa ñu bokkali bàyyi ngeen tam def kër Sidi Asmaan fekk ñu bokkal ñëpp wëlbati ko toog ci su toog ci kanamam topp ko mais kooku ko ne xam na ne kon lan la yàlla rek man loolu kon yàlla jooju ñu di gis ba ñuy topp dara xëy na la yàlla di def ca ñooña ak nit ñi leen di topp ku ci ne dafa am sa niveau boo nekk boo xam ne ku la ca la ca fekk rek xam ne yaa ngi ci am na foo taxaw moo tax wutuñu nit ngir giir waaw giiroowuñu ay nit koo gis muy wut mbooloo ko dajale rek xamal na naru caa def lu lu baax nit yàlla yi giiroowuñu woon nit ñi leen topp ñëpp ñoo ko toppal seen bopp ñii fi nekk di ay taalibe Seydi Ajmal wala taalibe Cheikh Ahmadou ku ne xam na ne ba mu fi nekk nag ni amul woon ay ay amul nekku ñu ci woon te koo ci wax nag lu coow li bari bari koo ci gisit bu la waxul bu la waxee la ca biiram ah, ma nga yaakaar sëñ Tuubaa wala yaakaar Azmar waaye sama maas gi moom dañ la dañ leen cay xool rek waaye ñooñu ñoo liggéey liggéey boo xam ne ñoom la xool ci kone ne luñ gis nag luñ gisul nag lu ca lu ca jege rek ñu jël loolu teg ca kanamam ñoo ñooñu tamit ku ne xam na ne du ñu ay du ay yaafus parce que gëm-gëm. du fi caaxaan moo tax alxuraan di ko wax xaalatil arabu amana xullum tu'minu keroog laay wax ne mais islam bi nekk léegi boo ko xoolee sax firaw na sax nee na woon jullit la laa ilaaha illa llazi aamanat bihi banoo israa'iila wa ana minal muslimiin kon baat boobu dafa mel na moo jur cat lii nu dal jullit mooy kii def loo xam ne la muy def ba gëmu ko waaye ku gëm yàlla ku ne ak ah, al mo innamal mu'minuuna ixwa la alxuraan wax waxul innamal muslimoona parce que islam ci diine mooy ni koy Jibril firi la woon yonent bi sallallahu mooy li ngay def ci kaw julli natt azaka woor nangam nag nit am naa fekk da koy def mais gëm nag moom ki koy def mooy ki nga xam biir néegam ak biti néegam ak nit ñaa gis ko ñu bañ koo gis am na ku teew ci kanamam muy yàlla kookee loolu muy gëm ji tax nit ñi di wax ak jullit bu ñu demee ba lislaam ñu di ko ñaawal nga xam ne reykatu nit ba ak taalkatu bomb ba mooy loolu rek la ngay def ca gëmoo ko tu kooku walaa balul jullit bu ñu koy wax mooy ki gëm moo tax ñu baax ñi moo tax li ngeen wax nii nga jël ab tijaan ak murid ba xaadir ba kee di julli gëm la bu fekkoon te lislaam la ca kaw leen da nga naan ah waa Ndar yi de kon nee nañu wala bu ñu gisee ab murid di jiite tijaan ñu ne ah gis nga ko de waaye ginnaaw gëm nañu xoolatuñu loolu ñu nga gëm lañ pas-pas ba moo tax yàlla ne innamal mu'minuuna ixwa ñi gëm ay bokk lañu waxul ñi ay jullit yi waxul ñi muslimoon ay bokk lañu mais ñi gëm la wax ne benn lañu duñ xam lu leen di boole ñoo ko kenn mënu leen xàjjale kon ku koy doxal ku ne yaa ngi dimbale ñooñu ñooñu ku leen di dimbale doo leen wutalum noonu nit ku ko bëgg lislaam gii nga gis ñu di ko wutale noonu foo tudd lislaam ci dëkki tubaab yi dañu lay ragal mais ñooñu am noonu lañu parce que lislaam boo ko gëmutit wala boo ko doonee dit nag kenn forcé wu la ci kon kay ki ko gëmul ba ko kon boo dee fexe ba waxuma sax mu bax waaye mu bañ ko sax far bañaale kooku xam nga ne am noonam la loolu moo tax nit ñu baax ñi tamit loolu moom nii ngeen koy doxalee moom la lañu daan seq ci seen diggante ak lañu daan doxalante loolu mooy gëm yàlla te moom amuñu woon ak jokkaloo bu yombu leen woon amuñu woon ay téléphone ak ay rajo ay kii yooyu te mës ñoo umpante ndax li leen boole mooy buumu yàlla gi kooku dafa jege. saa bu amee lu lu xaajale rek buumu yàlla ga moo fa nekkul moo tax ñëw amuñu woon boobu problème loolu nag moo tax ñun tamit sëñ ji bi mii ñu di fi ñëw ñëwuma fi parce que sëñ laa am naa moom relation wax naa ko ko daaw waxati ko ko su la neexoon bu ma fi ñëwee sax def naa ñëw naa fi ay yoon yoo xam ne gisuma la sax yow it bu la neexoon doo ci faale sax ndax du la wàññi dara parce que am nga koo xam ne wóor na le ne bu la neexoon nga yem ci ndax yàlla wóor na leen yàllaa nga foofu kon soo xoolee loola ci nun bay defa def wala nga di ñu def nga di nga di ñu jox cër boo xam ne xëy na mën naa am ca baatin de moo ëppoon ca sëñ ba waaye ca kaw gi moom cër bi nga nuy jox daaw leen fa àgg ñu bari sax duñ ko xamee noonu kon lu mel noonu kon mooy tax li ngi nit ki la mu gëm te muy lu baax mu xool ci yàlla loola la cay gis loola waxtu wu ne bu wàññeekoo rek dafa am lu ca des ku dugg ci mbirum këru yàlla rek génnaat rek da ngaa da dugg da fa faa duggiwul woon la fa ne moo tax nag ñun tam su ñu fi dee ñëw wax naa ko jàpp fan yi yëpp bi may ñëw day tey foogoon xawoon naa jafe lool ndax àll ñi ngi woon ci dëkk jo jafe waaye boo ñëwee ba fii rek da ngay daal di eh, da ngay xam ne lépp loo xam ne yàlla rek la moo la ciy jox kàttan gi waaye foogu moo ne sax danañ mën a agsi ndax coono bu ak fi ñu nekkoon ci dëkki àll te ñeme wu ko wax nag nekku ndax bu ma ko waxee mën naa am maay am problème waaw waaw ndax ñoom dañoo am seeni yëf waaw dañoo am seeni yëf ndax magum jëmm kat mu la xool fu baax te am loo xam ne mën na caa jàpp boo dul ni damay wax ne sëriñ responsabilité la mais du pouvoir saa bu amee problème rek mooy buñ bëggee nekk pouvoir bu la nit ñi dee sukkal di la mal boo dul nit da ngay defee ne yaa ni toll mais du pouvoir réponse da ngaa war a tiit ndax la ñuy xool ak la leen boole yow xool na ci sa sa sa sa damir ndax loolu am na ci jeexal sa bopp bu baax yal noonu yàlla musal nag ni di ñu jeex gis ci leneen te yàlla buñ ko seq ak bu ko defee loolu ca ngay mën a peese peese xam ban lan la loo sonn sonn ak lu jafe-jafe jafe boo gisee nit ñi doo toog da koy fàtte da koy fàtte ndax da nga naan mais dem na xam naa gis naa léegi ñi li di la nuyu di la lu ñu di ko def te yàlla rek tax mais kooku da beneen affaire la responsabilité la li ci jamono ji nag moo ko jafeel mooy ñi jàpp ne nguur la te loolu dafa bare ndax da ko niru nag mu mel ne kon loolu na mag ñu doon xeex moo tax damay wax damay wax ne euh, euh, ku watuwul da nga am jafe-jafe fii waxuma la ëllëg yàlla na ci yàlla musal ndax kat nit koo xam ne gënoo ko yéen a bokk deret muy nit yàlla ne ca biir nit xam-xam nekk ci biir lépp ne fa mu wëlbati ko fàtte boppam xool la ngir ci yàlla rek kooku defe naa ne loolu ku ko ku ko xool euh, boo waree boo dee nelawit war ngaa bañ a xàndoor bu baax loolu nag moo taxoon ñoom daawuñu giiroo nit waaw giiroo nit bii xew créer su moment lu ne nga dugal ko ci tey duggul fexe fexe ba xëcc ni léeg sax am na ñoo xam ne dañuy fay ay xale sax ñu topp leen am na fay ay mbooloo ni leen ko ne boo bëccëg ma fay la nangam boo fexee ba ñëpp ñëw nga ñu naan mbooloo maa ngi te fekk ay caaxaan ñooñu ko ne xam na ne jëmuñu fu baax dafa am sama maam boo xam ne dafa waxoon ne Sëñ Tuubaa nee na ko danañ toll jamono boo xam ne danga gis nit ko ànd ak mbooloo mu bari ñu topp ko euh, aw yoonu sawara di dem te bu ñu wëtuwul danañ àgg mu tiit lool mu ne ko te moo na am na man la ñuy tuddoo moo tax moment yi ngeen di gis ñu ci bare ñu di ko tuddee Sëñ tubaab ba noppi nekk ci leneen lu baaxul ñooñu mooy ñooñu muy wax rek ñoom lijjanti nañ seeni mbir kenn du leen sërxal waaw ànd ak nit ku baax ba noppi lu la neex def lu la neex wax fu la neex dugg ba noppi ne kooku nga àndal loolu damay defe ne ñaawal ko sax la sëñ Touba ak euh, rus na yàlla bu ko yàlla ne woon kat ku la topp sax booy ba mu def lu ko neex te dem àjjana du ko nangu rus na ko li mu am ci topp ci yàlla nekk ci njaamu yàlla lu ne mu daj ko ci lu ne ñëwoon ko ci mu wëlbatiku yàlla ne ko ku ma toppul ku ma mooy ku ma fooyee <laughs> na kooku du ko def ko defee nag yéen ñi kilifa yépp noonu la ñu def képp ko ànd ak nit ku baax xool ci yàlla fexeel ba jéem a topp ca la ca des moom xëy na mën na ko lijjanti waaye nag na la ca gis ca ca yoon wa rek waaye bu la gisul nag du la mën a du la mën a jàllale fenn bu ko defee nag loolu moo tax ñu di leen dénk surtout yenn xale yi ak soxna yi ak ndaw yi ngeen gën a góor góorgóorlu leen bu baax ci lu baax góor góorlu woon ci seen jàmm yàlla yàlla daf noo bind ngir ñu jàmm ko dara nekkal ko ci waaw bu ko neexee mu jaam nu jaamu ko ba dem fa ko neex mu yóbbu na fa amul problème kon bu ñu dugg ci fa mu nuy yóbbu fa mu nuy génne fa mu nuy dugal digal nañu daal nan ko def bu ko defee nun la ca des nag ñu bàyyi ko ci loxam ñan teg ñan doxale suñu diggante ak ñoom bu boobaa ñoom danañ duñ am kers kersak kii gët nangam waaye nag ànd ak nit mu jëm ci yoon nekkoog moom ba noppi ba ëllëg nga bëgg koo xool wala nga bëgg ko faa fu ne nga di ko fa séentu doo ko fa gis ah, buñ la rusee ba dugal la foo xam ne itam yaa ngi leen gis ndax nga am ca gàcc yit nga teg ko gàcc yit dara jaru ko kon nu góor góor lu ci lu baax lu ci jàmm yàlla xale yi ngeen góorgóorlu bu leen yàkkamti euh, bu leen yàkkamti ñi ci jàng wax naa ko nañu jàng ñi ci jàng lu mu di doon nañ jàng seen diine nañ ko ci boole te jàngantu dara jaru ko waaw na ngeen jàng ku ci jàng sa diine na nga ko jàng bu baax bul topp ñu di la nettali wala bul topp loo xam ne xamoo lan la ndax gis nañ ko li fi mag ñi def cooway bari rek waaye kenn du ko gis lu mu def ñu bind nañu wax nañu am nañu résultat aussi te loolu yombul résultat nit ci pas-pas kooku yombul mën nga ko won lu ne mën nga ko ko def waaye fexe ba loolu am kooku beneen mbir la yonente yi kat coow li bari na waaye ñii ci échec bari na dañ ko waxul la waxewul noonu rek waaw nekk di yonente lu ne nga def ko lu ne nga feeñal ko lu ne nga wone ko nit ñi lànk wala ñu di la ñaawal bu mujjul fenn gis nga ko noonu rek doy na ci sëkk junniy at yu manqué juróom fukk nga nekkoon ko ci ba mujj nga mer lu ne nga di ko wax alagal nit ñi alagal nangam te loolu ñii defuñu ko suñu wàll yi defuñu foofu egguñu foofu lu ne am nañ ko ci coono waaye fexe nañ ba résultat am ko ci ay nit te sonn ñu ci hmm? mais kon jàmbaar la jàmbaar la kon nag nanu gën a am xam nga kon nanu fexe ba loolu mu téye ko bu baax téye mooy jéem a góorlu jéem a nekk ci lu baax bàyyi dugg ci lu suñ yoon nekkul xol yi rafet rafetal xol yi bañ a dugg ci ay détails rawatina kilifa kilifa du dugg ci détail day moom dafay yàqal kilifa lu ne nga bëgg caa dugg gën a fonk détail sax fa la ca gën a am solo waaw kooku kenn du ko def bu ko defee euh, ngeen ngeen ngeen ànd nekk benn kon sëñ jibi bi xëy na waxtu wi jot na loolu rek lañ di wax defoon na sax su ma fi ñëwee du ma du ma du ma mën a sax toog wante euh, boo gisee nit ñi rek ak nga xam ne dangay xam ne mbirum yàlla moom euh, <laughs> lu mu la ca teg rek bu ca bu ca indi ay yëf yi ndax bu ko boo ko ca tegee mën naa am ñoo xam ne sax li ñuy li ñuy fi ñu jaar sax duñ jaar mocc bi mais bu ñu demee tuuti rek sonn parce que yàlla itam nag waaye nag yàlla nañu yàlla leen nuyu nag buñ ci dugal leneen buñ ko rax. waa ndax boo ko raxee nag mën nga caa am leneen loo xam ne doo ko foog yàlla nañu ci yàlla musul waaw yàlla nañu yàlla musul ci rax ko waaw mooy nekk ci lépp ñu jublu ci lu baax ak lislaam ak yéen ñii nga xam ne yéen a yaakaar ngir yàlla rek ñu ànd ko ak yéen kon nag sëñ ji bi yàlla na yàlla bàyyi yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla faj aaju yi euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah. kon tàllal leen sëñ bi ñaan ndax waxtu jot na. amiin amiin. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin fekk yàlla nga fi yàgg